kii wóoluwuma ko dara yàlla nag mooy def loolu man macaroni dama ko xool rek di loxo man daraam doyuma man wóoluwuma ko man bu doon sama rakk bu góor sama jabar du dem këram yàlla nag mooy def loolu nga xool nit ki rek daraam du la doy macaroni daal wóoluwuma ko mais loolu débat bi débat bi mooy ñaari photo yi maanaam ñaari photo yi bu ma ko xoolee rek sama xel dafay dal xam ngeen lu tax bi ci njëkk mooy damay xam ne kii Macron moo ko jàpp te boo xoolee ñoom ñaar seen xoolin kenn ci réewul nga xam ne ñaan ñi duñu xarit milieu bi moo leen boole bu ñu paree ku ne dem sa kër soo xoolee ñaan ñii xam ne moom moo jàpp kii def ko muy bàyyi jébbalu boo leen xoolee ni ñu réyee nga xam ne maanaam ñaan ñii dañoo bëggante ñaan ñi ay xarit lañu donc lépp lu nit di wax ci ñoom na leer mooy kii mooy góoru yaay may ma ñeex bi téye Macron ba mu dëgër nii beneen bi ci topp nag mooy sigilati nga Afrique <laughs> bi moom ku ko xool ba ci biir loxo Ousmane génn ci moom yii lay def ak tubaab yi moom yii la leen di def xam naa ne tey moom tubaab yi moom français yi jommi nañu waaye nag euh, monsieur Diomaye maa ngi lay ñaan beneen yoon booy duggaat Europe na am ku la jiitu xoolal la météo bi fi mu toll parce que boo xoolee muud yi nekk fii sax ren tabaski gi yabuñ seen yëre yii de dañ koy sol rek daw yëg ci kaw balcon bi photo rek gaaw si mi ko parce que fii grade yi fi nekk fan yi moomul yëre wolof de wala boo nga def ko ci sa saak bi boo ñëwee nga sol ko après boo paree nga simmi boo génnee ci kilim bi rek nga gaaw simmi fii dafa tàng de dafa tàng trop xam nañ ne nag leen ma ne lii Ousmane loxo usmaan <laughs> génn génn ci ndax moom moom yi lay def tubaab yi moom moom moom na à la na africaine rek moom yoonam nekku ci moom moom moom moom moom jantal la waaw ah, mais nii la na tubaab bi la na tubaab bi commee bul ñëw di concours ak ñoom wala ngay xëccoog ñoom seeni veste seeni kos non parce que boo ñëwoon loo fi indi fekk ko fi nii rek nga mën a def <laughs> waaw nii rek